ñu toll jamono ji ci fukk ak juróom ak ñaari sénégalais yuy ñàkk seen bakkan ci feebar bii di coronavirus gannaaw bi mu duggee ci réewu Sénégal niki 2 février 2019 coronavirus bi soxeekoo ci réewu Chine laal Europe dugg États-Unis yegsi fii ci Afrique ci Sénégal moo ne ñi ci ñàkkagum seen bakkan lim bi takkoogul loolu ñi jot a am feebar bi tamit bariwuñ loolu terewul lu toll ci fukk ak juróom-ñaari sénégalais ñàkkagum ne ci seen bakkan bi ñu tàmbalee ñu nemmeeku woon ne lii di coronavirus ay mag dong la doon yóbbu bu ñu xoolee seeni at ñi nga xam ne ñoo ci jotagum génn àdduna dégg ci ay 94 ans 75 ans 73 ans waaye tamit 54 ans mag ñooñu ci ñàkk seen àdduna ñu nemmeeku ne ñu ngi soxeekoo ci région bi di Dakar Touba waaye tamit Thiès fan yi ñu génn nag ñu nemmeeku ne coronavirus tàmbale na laal ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ci bi ñu tàmbalee. xaymakat yu bëri doon wax ne feebaru coronavirus yabul ñi nga xam ne ñooy ndaw yi maanaam jeunes yi ndax ñoom seen wërgu yaram mun na xeex ak li nga xam ne mooy virus bi. loolu terewul ci ay bés yi ñu génn ñu nemmeeku na am na ñaari ndaw yu jot ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne mooy coronavirus. fii ci ndakaaru ci diwaan bi nga xam ne mooy rëbës Eric Agbo moom mu jot a ñàkk bakkanam ci li nga xam ne mooy coronavirus. ni ki démb ñu nemmeeku tamit ne am na beneen ndaw boo xam ne lii di coronavirus moo ko génnee àdduna ñaari ndaw yi tolloo ay at terewul feebaru coronavirus jël seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xam ne moom la ministère de la santé et de l'action sociale joxe mu ñuy xamal ne ki ci njëkk génn àdduna moom dafa dajale woon ay feebar yu mel ni asthme diabète waaye tamit am yaram bu bari loolu tamit ñu nemmeeku ci ki nga xam ne moo ci mujj a génn àdduna te nekk ab ndaw ci ministère bi feebar bi nga xam ne moom la ndaw li boole woon ak coronavirus mu ñuy xamal rek ne maladie chronique la woon loolu sax ñu mën cee dégg ne bu weesoo li nga xam ne mooy coronavirus li tax ndaw yooyu ñàkk seen bakkan mooy dañ ko boole woon ak yeneen i feebar yoo xam ne ñoom dong mën nañoo indi ab loraange ci doomu aadama lii nii tax ba ñu bëri xoolaat seen taxawaay ci feebaru coronavirus ñi jàppoon ne ndaw yi feebaru coronavirus mënu leen indil benn loraange xoolaat seeni taxawaay bu baax xoolaat seen taxawaay ci li nga xam ne mooy coronavirus.